Abbas aussi kii di mhm. Abbas Fall daal dinay daal dinay répliquer moom mayu ko dara daal mhm. nay répliquer ne kii di euh, Abdou Mbow doonul loo xaman doonul kenn koo xamante ne ni bi euh, làmmiñam dafa rëy moom loolu la ko mën a jàppee làmmiñam dafa rëy te kàddu yi mu yëkkati yépp aussi ay kàddu provocation la mhm. waaw nee na kii di Abdou Mbow dafa dafa taxawee taxawaayu provoqué ki nga xamante ne mooy le PM voilà donc comme ni nga ko waxee Euh, démb ci euh, démb voilà démb 9 juillet. Mhm. Euh, moom ki nga xam ne moom moo jiite groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar donc comme ni nga ko waxee daal di def question écrite. Mhm. daal di ko jébal ki nga xamante ne ni moom moo di le premier ministre Ousmane Sonko. Mhm. ci biir question écrite bi texte bi voilà ma ma jëm leen ko liiral. mi ngi wax ni monsieur le premier ministre. il nous est difficile encore une fois de faire face à une tragédie nationale qui vu près d'une centaine de nos compatriotes périr en mer au large des côtes mauritaniennes. Avant toute chose, je prie pour le repos de leurs âmes. Nous ne sommes plus au temps de la campagne présidentielle durant laquelle, adossé à votre manque d'expérience, vous promettez à chaque jeune de ce pays une allocation mensuelle de 150 000 pour leur éviter de prendre la mer et fuir ce pays dont les dirigeants, selon vous, n'avaient aucune solution alternative pour la jeunesse. Mhm. Maintenant que vous êtes à la tête du gouvernement du Sénégal, quelle solution proposez-vous à cette jeunesse désemparée pour mettre fin à ce phénomène? peut-être que si vous aviez sacrifié à la possibilité de venir devant la représentation nationale pour faire conformément à la Constitution notre déclaration de politique générale et ainsi y décliner vos orientations, votre cap et vos objectifs. Cette jeunesse aurait pu les considérer comme une boussole plus certaine que celle des passeurs et faiseurs de morts aux mains desquels la déception face à un régime qui entame son mandat par le mensonge et la fourberie. les aura abandonnés. Il devient urgent, Monsieur le Premier ministre, de me dire comment comptez-vous prendre comme euh, mesures et politiques à engager sans délai pour cette brave jeunesse dont la bonne foi a été abusée par vos utopiques promesses, le pays et tous ceux qui n'avaient pas pu euh, lire vos tous ceux qui n'avaient pas, pas lu votre livre Solutions attendant euh, les vraies solutions celles qui, entre autres, empêcheront ces drames récurrents. J'attends avec impatience la réponse euh, que je souhaite claire et précise sur cette situation de la jeunesse traversée euh, par un sentiment de déception et d'abandon donc moom Euh, Abdoul mbaw loolu la loolu la wax jëmale ko ci ki nga xam ne moom moo di premier ministre mais su waxee ba pare man li njëkk a ñëw ci sama xel mooy. Mhm. c'est-à-dire où était Abdou Mbow euh, actuellement on parle d'une centaine de personnes et on est d'accord que loolu la benn mhm. bakkan bu bu rot bu ci nekk euh, jàpp naa ne musiba la ci réew. war a war war nañu war man na sax ñu def ko deuil national. Mhm. mais fan la Abdoul Mbow nekkoon. c'est-à-dire boo xam ne des milliers des milliers et des milliers de sénégalais dañ doon ñàkk seen bakkan chaque jour ci géej gi mu ànd ak un président boo xamante ne nii c'est-à-dire population ba bëggul ubbi gémmiñam wax si ñu doon ñàkk seen bakkan. Mhm. fan la Abdoul Mbow nekkoon pendant ce temps-là est-ce que il avait la pen mu bind lettre au président Macky Sall jamono boobu koo xam ne daanaka ñoom ñoom bokk même camp pour lu dire que président kat nañu wax ci mbirum xale yi nga xam ne ñu ngi ñàkk seen ay bakkan. Mhm. pour man euh, mbir yi lii mu nekk di def nii. c'est-à-dire ngeen baal ñàkk jom lañ ko mun tuddee quoi mhm. lii yëpp ñàkk jom la c'est-à-dire yow mënoo euh, doyen Alpha premier mi-temps ñu dugal la ci terrain bi defoo fa dara c'est-à-dire yow tu viens euh, ñu dugal la euh, quatre-vingt-dix minutes sa laay wax nga football ko waaw amoo occasion amoo but ñu ne léegi dem nañ prolongation ñu dugal nit mu dugal deux bi nga naan noo deux yi daa quatre bi la waroon dugal am na loo xam ne ñàkk jom la quoi en fait mhm, parce mhm. que yow déjà Macky Sall mépris bi mu affiché ci jeunesse sénégalaise bi musul am ci histoire man musuma ko gis c'est-à-dire waxuma la 100 waxuma la 200 chaque jour da nga doon xëy ba léegi kenn mënu la évaluer ne la tant de personnes ñoo doon ñàkk seen bakkan chaque jour ci géej gi. Mm-hmm. moment boo xam ne campagne la woon nit ñi dañ doon xëy di dem di dem di dem chaque jour da ngay xëy ñuy compter ay dee. Mm-hmm. ba léegi nii doo ma génneel fenn fu ne ne président Macky Sall taxaw na ne ndaw yi dee si géej gi mosu koo def si bopp ba keroog mu fi jóge defu ko pendant ce temps là fan la Abdoul Mbow nekkoon si biir texte bi. mi ngi wax ne bu fekkoon ne le premier ministre Ousmane Sonko ñëwoon na def sa déclaration de politique générale peut-être ba wax fi mu war a jëme réew mi dina tax peut-être ñenn ñi am yaakaar ba mën a toog mën a éviter li nga xamante ne ni am na. ba léegi waxi ñàkk jom rek c'est-à-dire yéen. mooy provocation non mais xam nga. sa bopp mais même voilà en politique en politique. Mhm. dafa am même une manière de faire de la provocation. Mhm. mais yow lii yi fi ñàkk jom rek nga ko mën tuddee parce que da wax loo xamante ne nii. Mhm. mais nit ñi ils vont se dire mais kii kan la yëpp. waaw waaw cest dafa xam nga ay bakkan yu root kenn du ko politiquer. donc pour man lii c'est très dangereux. Mhm. nañu arrêté ak xeetu doxalin yii mi ngi wax ci déclaration de politique générale mais déclaration de politique générale d'ailleurs sax dinañ ci ñëw après. Mhm. ñoom fi mu ne lan fan la ñu taxawee mooy nañu dem waxtaan seen biir pour que le règlement intérieur Ousmane Sonko fa mu taxawoon jugee gu fa. parce que damaa jàpp ne loolu moom mooy dëgg gi. Mhm. réew mënoo dig nit ñi ne leen man dama bëgg dëkk bi ñuy dox ci yoon. damaa bëgg dëkk bi ñu respecté yoon. Mhm. bu paree nga ñëw ci assemblée boo xamante ne nii c'est-à-dire li ngay def conformewul ak li nga xam ne moom moo di règlement intérieur bu assemblée nationale bi. Mhm. donc loolu xam naa ne dinañ ci dinañ ci ñëw après. mais li ëpp solo mooy que ces gens là yi Abdoul Mbow yi vous avez le droit ngeen ne da ngeen wu ci biir réew mi am ngeen ci droit. Mhm. mais bu ngeen demee ba koy def ak manière bi ngeen koy defee nga def sa lettre bii nii di ci wax du n'importe quoi. du à la fin nag. yow déjà da nga ne da ngay adressé lettre à un premier dugal ci sa ay ñamba as dugal ci say waxi waxi dof yoo xam ne mais nañu respecté sénégalais yi bakkan yu root kenn du ko politiquer kenn du ko politiquer donc yow mënoo fay nekk vous avez fait pire xanaa ñii dañ dee si géej gi lañ dee. Mhm. yéen ngeen nekk fi ay nit mi leen di rey looloo gën a grave xam nga ñee da ne dañ doon dem dee si géej gi. te pipé yow ki fi nekk yow ki nga àndaloon rey ay nit au Sénégal. ci parles pas de ça nga ñuy wax ay nit ñu dee si géej gi nañu bon le premier ministre na na na na jël ay ay ay dogal ci loolu. Mm-hmm. donc je pense que am na loo xam ne nag yëpp nit ñi lay lay xaw a nduru quoi. Mm-hmm. et nañu jox respect bu baax a baax. parce que itam peuple sénégalais <laughs> ku xool ci li fi jaar oo ko mën a respecté. Mm-hmm. vraiment surtout surtout euh, doyen. waaw bon Abdou Mbow <coughs> vraiment. <coughs> man je me demande est-ce que c'est une question écrite ça c'est une chose soi-disant question écrite ouais. gis nga àdduna boo ci nekkee. Mhm. opposition kenn bañu ko opposition am na. Mhm. Euh, politique moo demee noonu tey yow la suba keneen gagné. kenn mhm. ngeen dem opposition mais ngeen def une opposition vraiment constructive. mais opposition bu fekkee da ngay ñëw wala pour di jàngi. opposition da ngay dem nga def ndànk tey. xool noo koy jàngee. mais xëy tey démb yaa fi waxoon lii. tey nga waxaat lu ci des. à peu près moom moo à développer presque li li ñu bëggoon wax. Mhm. parce que mënoo fi nekk pendant douze ans amul drame bu fi xewul. dafa demoon nañ sax ba les gens sax même dañu doon wax naan euh, y a une complicité du président la République. parce que mhm. tellement ni nit ñi doon demee. Mhm. ni ñu doon émigré di dem. ci géej loolu aussi lu jaral leeral la. voilà c'est ça aussi euh, nit ñi sax posé nañ question boobu. alors yow loolu mu fekk la fi. waaw musuloo ci wax waxu leen ci dara et lu gën a rëy amu leen solution pour ça lu dul bàyyi ñuy def noonu ñuy dem. Mm-hmm. ba tey nga bëgg a retourner ñëw parce que tey yaa ngi opposition xëy na gisaguloo loo xamante ni war nga ko mën a wax. Mm-hmm. Ah, nga làqu sa kaw mbalaanu kiir lay comme député. Mm-hmm. ñëw naan bon dama koy lan question écrite. wax dëgg kii lui il aurait dû d'abord. Mhm. ah dem penché wu réglé seen problème mu règlement intérieur bu assemblée nationale boobu. Mhm. moo am solo pour faire venir le premier ministre. Mhm. qui est suffisamment mûr prêt depuis pour def face ak député yi def sa déclaration de politique générale. kooku ku xam Ousmane Sonko xam ni. du loolu mooy du loolu lay daw il a déjà fait ses preuves à la à l'assemblée mm-hmm. ñëpp teg nañ si bët moo ko may tey lii mu am ba fii mu egsi Abdou Mbow nag bon bu dee da ngay politique kenn bañul nga politique mm-hmm. mais booy wax des fois dafa am yenn façon wax yoo xamante ni boo bëggee ñu naw la boo bañee ñu xeeb la am na yenn façon doxalin yoo xamante ni nit ki waroo ko doxal mais je le comprends. Mm-hmm. parce que une fois je une fois seetaan naa ko benn plateau de télé. Mm-hmm. di il parlait avec d'autres ah co ay co am di wax bay wax eurobond te xamul sax luy eurobond. Mm-hmm. on t'a posé la question à savoir yow yaa ngi wax eurobond lan mooy eurobond. waaw mënul taxaw sax expliquer quoi que ce soit c'était avec Boubacar Camara. gis nga euh, genre nit ñu mel noonu rafetul. c'est pas parce qu'on est député c'est pas parce que. yow taxaw nga fii àlla yow taxaw nga fii bu yàggul rek amul loo waxul ne on va tout faire pour bloquer le président la République pour que du dissoudre assemblée nationale. Mm-hmm. on fera tout avec notre majorité mécanique on fera tout lépp li nga xamante yéen bëgg ngeen ko def ngeen ko def. Mm-hmm. c' est ça c' est c' est c' est c' est ça la réflexion d'un député de la République. Mm-hmm. loolu la yéen taxaw ngeen fii à l' assemblée nationale. loi de finance. débat d' orientation budgétaire nga xamante ni c' est inscrit day loolu c' est fondamental dañ ko war a def. Mhm. ngeen taxaw sursoir ko opposé ko dañ ko c' très grave. il faut parler sur ça. yooyu mooy wax yi tey lan la ñu mën a wax population yi ils ont voté. Mhm. violé la loi ils ont violé la loi ba tey amuñu ko nga bugg a taxaw tey bugg ñu heureusement que c'est c'est c'est c'est normal que euh, Abbas Fall wax ne c'est une provocation mmh. c'est une provocation mais nag une provocation boo xam amul kii il faut pas répondre mmh. il y a des provocations je préfère ne pas répondre que di ko kii parce que c'est une façon sax nga jéem ko nga koy exister waat loo alors que moom pratiquement il n'existe pas mhm. Mhm. man daal loolu laa ci wax te duma ko jël en considération parce que li fi xew dafa ne fang ñëpp gis nañ ko mhm. ñëpp xam nañ ko li fi daan xew nit nit xale yi daan demee tellement que amatuñu espoir gis nañ ne actuellement deux mois de règne pour l'instant trois mois de règne boobu ba léegi. Mhm. gis nañ ne léegi immigration clandestine bi wàññeeku na. y a eu des mesures yoo xamante ni gouvernement bi jël na ko tey foo mënti toll combien de fois ngay dégg à la télé. Mhm. jàpp nañu benn navire boo xamante ni dana waaje kii. Mhm. téye nañ leen delloosi nañ leen indiwaat nañ leen def leen kii ñaata yoon lañ ko dégg. ci jamonoy Macky Sall da nga ko mës a dégg. dañ daan dem comme du nii di dem ci géej gi gu guddeeg bëccëg. Mhm. de presque defoon nañ ko programme xale yi presque moom lañ jëloon pour seen kii. Mhm. ba ci Nicaragua bii avant que sax ñuy kii xale yi jëloon nañ ko. Mhm. il a fallu avec l'avènement de du président Diomaye ak Ousmane Sonko que xale yi xaw a dal tuuti sax yaakaar ne bon début de solution dina am moo tax tey ñu toog di leen déglu. donc Abdou Mbow man duma ko jox crédit si vraiment que pour il nous parle de questions écrites <laughs> vraiment c'est du sabotage quoi. <laughs> Euh, euh. mais doyen yaa ngi koy wax sànq ci sa biir wax da nga wax ba ne euh, dem gi doon am am na sax ñu doon wax bay jàpp ne c'est-à-dire lu lu gouvernement bi fi nekkoon doon doon doon togg la. oui parce que. Euh, tudd nañ sax ba tudd ci ay nit. Euh, mhm. par exemple ki nga xam ne ni doom la ci président Macky Sall di Amadou Sall. oui mais ñu ngi ko doon tudd ci mbir yooyu. am ñenn ñu génn def ay révélation pour dire que moom moo doon fay gaal yi pour que ñu transporter jeune yi nga. xamante ne ñoo ñoo doon dem ci gaal yi. donc pour man loolu aussi. mérite na mérite na qu'on enquête sur ça. pour savoir réellement ce qui s'est passé. effectivement fan la gaal yi doon jóge parce que dañoo tolloon ci benn moment boo xam ne. Euh, jeunes yi maanaam yëngu yi doon am ci biir réew mi. en un certain moment président Macky Sall moom jeunesse bi moom horreur la woon ci kanamam donc ñu doon dem peut-être di di dem ci géej gi moo ko doon gënal ñu toog ci biir réew mi parce que ci ay manifestations yu doon am ak tey ji tentative euh, installer benn dictature au Sénégal peut-être li ko doon gënal jamono boobu mooy jeunes yi toog ci réew mi di bañ moom mooy nekk pression ci moom et une fois ces jeunes là génn réew mi peut-être dafay jàpp ne loolu moom mooy gën a sedd ci moom donc pour man suñu waxee ne dafa am ñenn ay jegeñaale président Macky yoo xamante ne ñoo doon organiser gaal gi bay fayal ay jeunes pour ñu dem jàpp naa ne loolu aussi mérité na ñu def ci enquête bu leer pour leeral ce qui passé. yan gaal ñoo doon dem ñan ñoo ko doon fay ak mbir yi nan la doon demee. oui et, et surtout Momo sur le plan sécuritaire. Mhm. ñëpp xam nañu suñu laat ci côté yi. xam nga yaa bon au Sénégal kenn dootul naa table ñun sur le plan sécuritaire. Mmh. comment noo noo nos kii suñuy autorité ñu mhm. ñuy jëlee sécurité bi ci géej gi fu mu mënti doon. loolu mënu échapper sécurité bi nga xamante ni moo fi nekk. Mhm. donc. il est normal que complicité boobu ñuy wax mu nekk loo xamante ni lu ñu jar xoolaat la càmbar parce que on ne peut pas chaque jour que Dieu fait ci jamono yooyu lu mat presque ay quatre gaal sept gaal di di traversé di dem. tromper vigilance su sécurité bi kooku mënut a nekk mënul nekk. moo tax vraiment li nga wax nii man dama koy appuyer à cent pour cent. alors donc pour dire rek ne pour continuer rek pour dire surtout que Abdou Mbow li muy wax. mënuñu ko porter crédit parce que vraiment waxin la boo xamante ni soit soit c'est une provocation wala boog il parle peut-être pour exister man noonu rek laa ko mën a jàppee. Mm-hmm. pour que bon ab man la Abdou Mbow wax naa bëgg naa nit ñi dellu si loolu la man noonu laa ko jàppee daal. wax dëgg Abbas la ci loolu la ci tënk. mais oui kàddu yi kàddu provocation. non Abbas ne devait même pas répondre à mhm. Abdou Mbow. <laughs> man su ma doon Abbas du ma ko sax répondre parce que am na yenn déclaration yi c' comme c' est c' est comme le cas de Moustapha xam nga am na ñoo xamante ni. Mhm. bon man mënuma accepter nit nga yor benn ndombal tànk surtout ko à l' assemblée nationale c' est pas donné n' importe de groupe parlementaire. kooku amul groupe parlementaire un président président groupe parlementaire c'est pas donné à n'importe qui mm. tu quelqu'un boo xamante ni vraiment réfléchi quelqu'un posé li ngay wax dañ koy day dafay am njëriñ pour askan bi li ngay wax dafay mettre député yëpp mm-hmm. ah ñoom ñëpp a ah ñu nekk à l'écoute si li ngay wax mm-hmm. parce que yow d'abord temps d'antenne bi nga am à l'hémicycle bokkul ak ñoom li ñu am mm-hmm. la nga war a wax li ñëpp wax yaa ko war a tënk ci benn kayit donc la ngay wax dafay am solo nit ñi dañ ko war a dégg waroo nekk ci ay débat de bas étage. loolu nit waru ko am. Mhm. on a vu ici quand euh, Birame Souleye Diop était était président groupe parlementaire mais vraiment lors de ses interventions ñëpp dañ ko doon apprécier. Mhm. Mhm. on apprécié am na fi yeneen législature yu fi jàll. y avait des présidents de groupe parlementaire yu fi daan jàll. mais tu sentais carrément que la kii euh, euh, assemblée bi vraiment c'est une assemblée nationale boo xamante ni de haut niveau. c'est dommage après Abdou Mbow il est a est venu d'ailleurs xaw ma ndax moo fa sës. Mhm. je ne sais pas xaw ma lu kenn kenn xamul mais nag c'est normal. Mhm. quand on est en face d'une assemblée générale où il a euh, ay Koura Macky. Mhm. bon toi Abdou Mbow comme président groupe parlementaire c'est normal. kooku moom Abdou Mbow comme groupe parlementaire devant les Koura Macky kooku c'est très normal. <laughs> <laughs> vraiment. <laughs> alors euh, Momo dañuy duggaat sunu beneen point. Euh, ba tey ci mbirum clash bi la nekk.